le plus grand marabout du Sénégal l'international sëriñ bi ñëpp wóolu sëriñ Xaadim borom tawféex ah mbokk yi leen ma wax leen secret bu gën a gaaw bëgg yokk seen awra dem leen ci sëriñ Xaadim borom tawféex te da koy def noo bëgg dimension bu la neex nga dem seeti sëriñ Xaadim borom tawféex mu yokkal la yemul foofu de xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo bëgg a yokk fes yokk hanche demal seeti sëriñ Xaadim borom tawféex mu daal la ciy taxaw bu baax a baax bépp produit boo xam ne amul effet secondaire produit boo xam ne dañu koo saytu càmbar ko xool ko ba mu baax yokk fes yokk hanche ak yokku awra pour xale yu góor man Serigne Khadim borom tawfeex laa ci ah yéen ñi amee rab jinne topp leen yéen ñi bëgg bayre yéen ñi bëgg ubbeeku yéen ñi bëgg am place bu kawee kawe ku bëgg nekk maire président ak lépp loo bëgg demal seeti ki nga xam ne moo di Serigne Khadim borom tawfeex man kii laa wóolu boo ko bëggee jot woo ko ci numéro bii 77 nga koo whatsapp wala appel normal mën nga koo fekk Thiès itam wala Ndakaaru Ndiaye man Serigne Khadim borom tawfeex waaye sëriñ Xaadim gis nga nag du waa bitim réew rek la yittewoo ñun Sénégal yi itam soxla nañu lool kon del toog lu bëri ci réew mi waaye sëriñ Xaadim borom tawféex akum tawféex rek ngay am ci sa aajo